kër ñan bokk ci quartier yi gën a yaatu ci dëkk bu tedd bi di Touba jamono yi kat askan wa fa yeewoo am nañu tiitaange ak njàqare ci seen wergu yaram la ko waral nag du leen lu dut ay ndox yu bon yoo xam ne nii fees na ca mbedd ya ba tàmbalee dugg ca kër ya bàyyi ko ci bassin de rétention ba ban fa def ngir muy génne ndox mi jëmale ko ca Daaru Rahman nag loolu nag moo tax askan wa fa yeewoo mag ak ndaw góor ak jigéen kuréelu ndaw yi ak mbootaayu jigéen yi ñoom ñëpp génn ci mbedd mi tey jii naqarlu ko ñaawlu ko ba fu ñaawlu yem. ndox mii ndox mii donc daaw ba ren daaw jéeg ba ren mi ngi fi taa xasoo xun borom kër yi jàmbar nañ ko di jàmbar nañ bëccëg tey nag ñu am naqar am jaaxle ci suñu askan ndax dañoo gis loo xam ne jàppoon nañ ni jeex na ci àdduna bi te ñu di ko gis fii mu nuru injustice li ko waral mooy kenn ku nekk xam na ne réseau assainissement bi jaar fii Kër Niang jóge ci bassin de retation bi nekk Kër Niang dem Daaru Rahman waa ONAS lay interpellé directement ne leen lii na ñëw saafara ko wala buñ ko saafarawul ñu fi gis bu ëllëgee ñoo ko def seen bopp. bala ñu ko def nag dinañ alerte kilifa yi fi nekk di ci jiital monsieur le maire de la ville de Touba di ci teg conseil municipal yëpp ak euh, commission bi nga xam ne ñoom ñoo jiite assainissement bi ci maire bi ne leen lii nañ ci taxaw nañ ci wax. tey jii nag xam naa lii moom dañ ne tey jii sax lañuy taxaw di ko wax waaye yaakaar naa ne yàgg nañ koo wax ndax lii ca pénc ma lañ ko njëkkee woon lu jiitu ca pénc ma sax maanaam jëmmi miiru ndox mi miiru ndox mi ci jëm boppam moo njëkk a yàqu maanaam la wër kanaal ba lépp nekk kër yoo xam si nii tey dañoo indoone dugg ci biir biir biir biir biir biir biir ndox mi loolu moo gën a nekk lu gën a ñaawati te loolee commune bi gis na ko ñi nga xam ne ñoo responsabilité lii gis nañ ko moo tax tey bi ñu naan commune bi nee na wala laat nee na man du ma d'accord laaj li muy wax c'est faux. te li ñu fa tax taxaw tey mooy ndox mi ci suñu ginaaw euh, nga xam ne ndox mu bon la ndox mu xeeñ par exemple bassin de rétention bi nga xam ne moom moo nekk Kër Ñang ndax bassin de rétention bi moom mu ngi vidé ji ba Daaru Rahman te boo xoolee Kër Ñang amul benn kër boo xamante ne ni bénéficié wu. am kenn xam fu ndox mi jugee. ñu yor ay xale ndaw teg ci xale yi fuñ jaar danañ dugg ci ndox mi ndax dañuy jàngi heure bu ci ndox mi la jaar amuñu feneen fuñ jaar ndax ci diggu trente la ndox mi di versé benn genre baaj lañ def fii ci diggu trente bi ñuy xelli ndox mu bon ndox moom lañ bëgg mu jugee li ñuy wax corona corona lii moo raw lii mën naa indi maamu corona ndox mi lañ bëgg mu jug buñ sukkandikoo ba tey ci askan wi nga xam ne ñoo féete fii ci kër ñang lu mat juróomi at a ngi ñuy dund jafé jafé yu tari ñel ñeel fos milé mile rawatina bim jamonoy nawet ak bobu ak légui bimu amé dem nañ fépp fo xamné ni yaakar nañ fa ak wall mo xam muy mairie wala kilifa aada yi nga xamné ni ñoo ngank dëkk bu tédd bi di Touba wayé nak amuñ ci ben safara lolo taxna nak ñu yëkëti ay cadeau di dankafu ki di maire Touba wa ONAS ngir xamal ne leen ne ñom kët fi ak délé bu néw bu ñewu ñu andi ci ay safara ñom ñi di askan yu kat danañ ko fajal seen bop num gëna gaawé parce que li nekul am ndoxum kese am ndox la mo xam ni dafa and ak ay ay cabinet lu ne la andal kon réseau bi dañ ci branché ay fonds bu fekkee ay fonds moko ko tax wa keur waa nañ ci branché la seen fonds ah mais defuñu ko ah ah li ay fonds lañ ci branché ci biir dëkk ba nañ arrêté lolu parce que bis bu ñu demee ba diko déboucher dañuy ñëw ubbi canal bi ne dañ koy déboucher buñ koy déboucher nak ndox momu day verser ci buntu këri jàmbur ak ci biir këri jàmbur ñuy wax maire bi monsieur le maire ne ko leen wax ne leen na ñëw defar ko daar daar parce que dañ ko ubbi di ko débouché ndox maa ngi nii di verse ci biir kër nit mënu fee nooy nit mënu fee def dara te lii mën na fee indi beneen loraanga boo xam ne nii bañoon na am assainissement sax moo ko gën ah buñ ne dañoo am assainissement nag ba pare assainissement bi di xaj le wala muy defaral ñee di yàqal ñi loolu yaakaar naa ne texul président Macky Sall mi doon def def lii parce que dafa yëkkati milliards yu bari def ko ci dëkk bi ñu def grande diamètre kon waroon nañoo mën a def entretien yoo xam ne nii kenn du ubbi lii muy lor ab jàmbur wala muy lool keneen. li mi nekk tey boo fi jaaree nawet oto dootu fi jaar ñaareel bi ci topp mooy fii bi ñu ne dañuy defaraat tali bii nga xam ne dañ ne tali bi def ci 30 bi dañ koo xoosaat suuf si fi nekkoon yëpp jaay nañu ko xamu nañu ko def. waaye benn suuf boo xam ne si lépp lañ fàkk yóbbu ko tey ji ñu jëlaat lii bañ ne leen dootoo leen ko ubbee ca penc ma ñu ñëw ubbiwaat ko fii léegi lii ñu fi indi ay fonds la dëkk bi yëpp xam ne ay fonds la ñuy wiideel fii ay fonds la ñuy wiideel te foofu yaa ngi dégg ñii nga xam ne ñoo nekk suñuy conseil dem nañ taxaw ak ñoom wax ak ñoom loolu fa la fa la suñu kàddu jote fa lañ ko fa lañ ko eggale képp kuñ war a dem rek dem nañ fa wax ak moom. ndox mi du ndoxam taw du ndoxam raxasit ndoxam foos la xam nga ne lii war naa jomb ci dëkk suufas Touba Mbacke sii. nawet bi bu ñëwee bu ko boolee ndoxu taw boobu noonu mën na fi andi ay yoo yoo xamante ni kenn du xam nuñ koy saafara te jàpp naa ne waa kër docteur xeexoon nañ fi li nga xamante moom mooy sibiru te kon tay ji li ak euh, nuñ ko mëna safara wa ONAS na ñew safara ko. ndaje mi nga xamne ni sax ñom askan wi ñu ko doon amal ngir ñaawlu li buñ sukkandiko ci cadeau yi nga xamne ne ñoo doon wax nenañ kat yenn ci responsable politique yi fare fofé ci Kër Ñang non seulement amuñu benn jéego bo xamne ni def nañ ko ci loraange gi waye biñ leen yëgalee ndaje mi wëqet daw lañuy def ngir bañ ko téwé tay yi tay la la wax ni ci ndaje mi waxo ñom wo nañ leen pour ñu téwé ko waye ñom ñëpp dañoo daw. ñoom ñëpp dañoo daw nanguwu ñoo taxaw. li ñu wax duñ ko sàmmante ni liñ bëgg dajale ñu ñu leen di yuuxaloo jox leen seen suñu carte di bind suñu carte d'identité dem noppi nañ leen a gis suñu amee luñ naqari duñ leen mën a gis ba mën koo jooytu ci ñoom. bi lay amee est-ce que dem ngeen kenn ci ñoom par exemple. dem kenn ci ñoom. Uh-huh. ba lii amee ànd naa xale góor yi ñun jeunes yi. Uh-huh. dem ci chef de quartier bi chef de quartier bi yebal ñu ci. supérieur am waaw Baye Moussa Bey ñoom mhm. la ñu jox jox ñu numéro mhm. woo ko mu jox ñu numéro mbaa Mame Mbaye Niang di mhm. woo ko une fois jotuñu ko chaque ngoon fii lay jaar gis na lii ump ko mais woo nañ ko ba sonn gisuñu ko mu mujj sonn bàyyi ñu trouvé benn solution jàpp benn ma ñëw bale fii ba mu set jéem a sakk affaire bi fii fépp dañ koo tooñ moom mais jariñu ci dara ndox mi di gën di verser bañ ko defee ba ca suba sax ndox mi génnaat di gën a génn tey ñu ñëw xëy koñ bi yëpp fees ndox mi di génn ba ci kaw kenn ma amul foo jaar. gi de moom métti na ñëpp kër ñi xam ngeen ci ci dëkk waaw guddi ak bëccëg. lii nag di benn ci jafe-jafe yi nga xam ne nii ñenn ci quartier yu mag ci Touba ñu ngi koy dund rawatina ñeel wàllum assainissement misaal mi fii la ci Kër Ñang ñu nekk ci noor bi tawagut. ndox mi commencé di dugg ci kër yi jaxasoo ak ay foos mën a indi ay loraange yu bëri bu nawet bi ëgsee askan wi nekk kër ñang lan lañ fas yéene dund ci ay jafe-jafe